yéen bokki àdduna cheikh yéen bokki Sénégal yéen bokki àdduna cheikh Mouhamed Ibrahim di borom xam-xam bu mag bu kenn dul naa taple ci wàllu ñaan seet maanaam asraar ak wàllu fajum cosaan képp koo xam ne da nga bëgg a tàggalikook cigarette wala sangara ku rab jàpp wala ku mënta am doom wala ku néew kàttan ci wàllu sëy wàllu gàllaaj ngir aar sa yaram mbirum samp nit wala gàllaaju kër wala mu jox la daraja ju mat sëkk ak bayre seetil Cheikh Mouhamed Ibrahim loolu mbokk yi moo ma ci doy fii ci biir réew mi mu ngi nekk ci noor Foire téléphone am 77 187 61 30. jaar di nuyu mbokku 4appuis TV yëpp tey nag ñoo ngi toog ak le grand champion muy père Mouhamed Ali di coach ci Balla Gaye 2 père ñoo ngi lay nuyu di la jaar di la bàyyi nga nuyu euh, ami internet 4appuis ñu waxtaan ak yow. mais Serigne ñoo ngi lay ziar bu baax et puis di nuyu téléspectateurs yeeg amateurs yeeg gars yi nekk ci diaspora bi yëpp di leen nuyu di leen ziar et aussi di kontaan toujours rek di jàkkaarloog yéen sëriñ per ku xam euh, làmb jamono ji xam ni jëm nañ si ay événement yu am solo événement bu ñuy euh, sollicité bu ñuy bu ñuy souligner rek euh, muy diggante kii di Modou ak Ama Baldé tey ñu war def seen jàkkaarloo ñoom ñaar fi nga xamante ni mooy RDK bu nekk coté Diass ginnaaw bu ñu rotee deux sciences deux deux deux signature contrat yi nga xamante waroon nañ ko def mujjul am tey nag ñi am yaakaar que ni ñaari mbëri tey daañu jàkkaarloo diggante Ama Baldé ak kii di Modou Lo combat boobu lu ma si a wax avant tout d'abord mais il faut que ngeen boobu mooy nekk combat bi peut-être bi ci année bi combat bu neex parce que combat bi ñaari mbër yi dañoo tolloo te kii di Modou Lo le roi des arènes wax dëgg yàlla yàlla def nag mu nekk un exemple dans l'arène def ay preuve am ba yàlla def mu nekk le roi des arènes Ama Baldé tamit kenn du moom parce que tey nekk na xale bi nga xamante ni tey moom moo nekk li ñuy wax naan un challenger officiel ñaanul kenn dara saraxul ko dara dafa wane ni man je mérite place ci làmb ji kii di Modou Lo nekk le roi des arènes dama mérité dajeek moom parce que tey samay morom jeexal naa ñëpp jàkkaarloog moom mais combat boobu mënul def nag lu dul neex ñaari style nag yu différente tey jii nag moo tax loolu moo lay wan ne nag tey combat bi nag wax dëgg yàlla ça promet mu nekk nar a nekk combat bu na neex parce que ñaari mbër yi kenn ku ci nekk tey yàkkamte nga jàkkaarloog sa morom boo sañoon ñu ne la suba la. kon xam nga ni combat boobu mënul def leneen lu dul neex ku si nekk yàkkamti ngaa jàkkaarloo ak sa morom ñoom ñaar ku nekk jot na def uh, li nga xamante ni mooy sorti fee sa hôtelu Fana dégg Lo dégg nga kaddu uh, ki nga xamante ni mooy Ama Baldé mu mel ni ñaari mbëri jaay ñu seen combat dara xew waaw mais nag loolu la ñuy xaar nag ci képp koo xam ni mbër nga jël avance tey jëm ci bis da ngay wane sa bopp su ko defee ñi nga xamante ni tamit ànd nañu ak yow dañ ne ah kontaan ci yow ci yow li ngay wax li ngay def keneen ki si am répondant bu kii waxee ki mu tontu ko loolu bokk na ci liy neexal ma parce que làmb léegi dañu dem ba toll foo xamante ni business la c'est c'est le showbiz donc li nga xamante ni moom mooy tax nit ñi sawar ci mooy que ni wax yi ñuy wax xasante yi ñuy xasante du ci dara c'est de l'adversité day tax rek bis bi la neex mais ça ne veut pas dire que ni ñoom ay ennemis la il faut gars nag di di bàyyi mbër yi li ñuy wax ñu bëgg fee mer di xuloo mbër yi ñaari adversaire lañu nañ leen bàyyi ñu wax li ñuy wax parce que jour bi ñoom ñaar dong la ci biir géew bi bu arbitre bi sifflé ñoom ñaar ñoom ñooy defante bu jeexee dangay gis ñu longante ànd dem ki gagné ñu félicité ko kii ñàkk ñu encouragé ko mu dem diwaat c'est la lutte c'est le sport le sport nag loolu nag la. mu nekk ñaari xale yi nga xamante ni yaakaar naa bokk nañ si xale yi nga xamante ni bokk nañ si làmb ñu làmb yaakaar wala ñu làmb ràññee ki di ki di Modou duggoon na pikin euh, daan ki nga xamante ni mooy Eumeu Sène euh, tey mu duggaat Pikine euh, jël ki nga xamante ni mooy Ama Baldé Ama Baldé daan Modou Lô fan la ko war mën yóbbu wala Modou Lô ñàkk combat fan la ko war mën non xam nga tey Modou ci làmb dootul nit ku ñuy présenté dañuy wax naan xale bi te ñëpp yàlla def na ko loolu dara may ko ko rek lu dul fulaam ak faydam c'est vrai que ni Modou ñëw na dugg Pikine kii di jàpp kii di Eumeu seen wax dëgg yàlla def ko aller retour ñu naan ko Touba dakaar du dëkk yàlla def na ko waaw tey nag attention kii fëgg buutam aussi du n'importe qui ñu naan ko Ama Baldé parce que Ama Baldé bàyyiwul kenn je pense que ni tey Ama Baldé li tax rek nit ñi war a mën a dellu si seen xel xam ni ku capable la te nee ñu fit xaw ma lu mu ñàkk waaye fit si parce que li mu wax bokk na parce que il est audacieux loolu bokk na nag ci ay qualité champion ki nga xamante ni tey gis ngeen ko ni mu doxaleeg Tapha Tine donc tey xam ngeen ni bu fekkente li mu wax ci digganteeg Modou Lo te nag di ko dund pendant des années Modou Lo xam na ni il a un adversaire de taille donc combat boobu nag wax dëgg yàlla nañ ko xaar yàlla def ci jàmm ak salaam que ni aussi nit ñi nañ ko rafetal nañu bàyyi ñaari mbër yi nga xam ne la ñu war a def lu ñu war a wax ñu wax ko parce que bis bi ñoom ñoo war a jàkko parce que bis la bu ñëpp di xaar képp kuy nag amateur wala supporter nañu teey te dal sañ sa ba rafet xaar jour bi dem stade pour seetaan di làmb ji ngay euh, préparateur physique ku la xam xam li yàgg nga yor ay grand champion mos nga yor gri Bordeaux Balla Gaye tant d'autres euh, tey nga gis ñaari mbër yi seen façon de entraînement état de physique bu ñu toll bi nga gis Modou Lo euh, yi nga xam ne mi ngi koy entraîné dama si woon benn photo bi nga xamante sax danga may décortiquer genre entraînement yi préparateur physique euh, yàgg a gérer ay champion ki ci mel ni Balla Gaye 2 euh, Gris Bordeaux ak tant d'autres tey gis nga Modou façon entraînement yi muy entraîné Ama bale gis nga ko aussi dama lay dëkk photo Modou bi rek nga expliquer ma façon entraînement bi euh, Modou Lo di entraîné yan façon entraînement bi. waaw xam nga Modou yàlla def na tey bu ñuy wax entraînement il a toujours été quelqu'un de constant ci li muy def Modou Lo que mu am combat mu ñàkk am combat toujours mu ngi ci ay entraînement donc ku ko gis nag xam ni aussi mi ngi liggéey ci bokk ak lu mu jëm parce que xam nga soulevé de terre yëfu mbër la. lii waaw lii soulevé de terre la wax dëgg yàlla mi ngi koy def mu nekk loo xam te ni lu am important parce que lii moom mooy base u mbër. te yàlla def na nag Modou Lo quand boo ko xoolee il est très puissant d'en bas ça veut dire que ni reen yi il est solide. lii wane ni nag ki li lii indi loolu mooy du dara nag lu dul liggéey bi muy def da koy teg ci yoon wax dëgg yàlla moo tax bokk na aussi ci mbër yi gën a naqare daan ci làmb ci euh, Modou Lo donc tey nag euh, li ñuy xaar tey peut-être que ni nag sa bénéfice du doute la boo xamante ni tey am nañ ko ci Modou Lo que ni ku tëla ku naqaree ku naqare bëreel la xale bii nag nga xamante ni moom mooy Ama Baldé tey dafa bëgg a ñëw dindi loolu yëpp teg ko mais moo tax ma ne làmb jooju mënul def nag lu du neex parce que Ama Baldé aussi il faut se dire que ni depuis lors aussi wax dëgg yàlla mi ngi lëlu du liggéey boole koo wax ju bëri parce que bokk na ci nit ñi nga xamante ni aussi bëgg na li muy wax mu di ko def Ama Baldé donc loolu bénéfice la pour képp ci pour làmb pour sport parce que bu ñu gisee ñaari mbër kenn ku ci nekk nekk ci sa côté di liggéey pour lu lay may ndam loolu bénéfice la xam nga lii loolu mooy tey ci jour làmb ji bu ñu nee salaamaaleykum ci stade bi tous bi dana neex lool te xam naa ni bëri ba moo koy dàq te nag loolu dañuy xaar ci ñoom ñaar. façon bi façon bi aussi tamit ban façon entraînement c' est la même chose soulever soulever soulever de terre la sauf que sauf que yi ñoom ñoo différent xam nga soulever terre mën nañ ko def ak ak benn ak benn baar ak rof disque yi mais sauf que baar bi c' fait exprès pour pour soulever de terre moo lay nag matériel dafa am solo ci liggéey. yàlla def na ñun Sénégal lii suñu cat mooy saa li am matériel yi bëriwul mais pour te dire que ni xam nga nag en Europe bépp liggéey rek ñu trouver euh, matériel boo xamante ne dana tax liggéey bi gën a yomb aussi gën a neex a def et vraiment ñaari mbër yi dañ leen di ñaanal yàlla yàlla may leen jàmm ñoom ñaar ba su jour si mais fi ñu ko teg nag foofu la parce que waxtaan bi neex na xasloo bi neex na envie bi neex na te mi ngi jox ñëpp envie incha allah pour que ni jour ji gaaw a ñëw pour que ñoom ñaar ñu mun a jàkkaarloo ba ñu xam kan mooy kan su ko wax lii wax la sa des ku nekk xam ni Balla Gaye 2 tukki woon na waaye ñëwaat na mi ngi fii Sénégal euh, tey euh, adversaire bu mu waroon bëreel euh, di Boy Niang démb gis nañu mu def benn sortie xaw ma bërki démb am ay kaddu yi nga xamante ni si kii di Balla Gaye 2 ngi xamal ne Balla Gaye boo dawee sama combat maag yow ba dem jël Eumeu Sène wala Gris dootuma bërégee dama koy dàqandi tey ba nga déggee réaction boobu mais yow kan moo la wax ni booy ñaar adver mooy adver moom la moom la war a bële ku la wax. Boy Niang moo wax di. waaw mais da jàpp ni rek loolu la la Boy Niang wax xam nga tey fii dara jaru fee daw bay daanu il faut pas oublier une chose wala peut-être que ni fii fàtte xaju fi ki jël sa avance kooku ba ñu la bëreeg yow mais dañu jël lépp ñu teg ko ci yoon xam nga yàlla def na. Euh, tey amoon na benn sortie moo defoon ne booy Niang ak Balla Gaye tàmb làmb boole na leen il faut il faut ñu bëri. waaw quatre appuis ko waxee woon te te loolu moom moo fi nekk tey il faut il faut se dire chose parce que booy Niang bu Balla Gaye ñëwee di ko may chance muy bëri après nag dafay ànd ak teey ak teg ko ci yoon du dëkk parce que tey pour man am na yenn yoo xam ne tey wax ju yàqu la en parce que il faut dire une chose ah parce que Balla Gaye du n'importe kii ci làmb yàlla def na ba Gaye ba mu nekkee ci làmb nekk xale bu daw wax dëgg yàlla di bay wàllam ci tool bi kenn daawul werante la buy wax wala at ay ay adversaire am kenn may kenn taal lu kenn loxo parce que ku mu bëree rek làmb moo la yow lu tax parce que dafa def ay preuve dafa daan ay moromam di daan ay magam benn par benn nekk le plus jeune roi des arènes xam nga Boy Niang être que ni loolu lañ doon xaar ci moom mu nekk un jeune nekk ci ruqam di liggéey ñëw na nag mi ngi liggéey. daan na fi nag Sa xam nga boo xoolee boo ñaar ci gis-gis ak ci dégg-dégg dafa mel ni ba mu daanee Sa Thiès ba léegi pour moom nag il est au sommet peut-être que ni looloo ko indil difficulté yi mu nekkee nii tey. non du question là ah, il faut arrêter ça c'est du cinéma xam saraxu Balla Gaye wala saraxu l'autre ça c'est du cinéma mais par contre dañuy jël rek lépp rek ñu teg ko ci yoon ci ci cadre sport xam nga tey comme li may wax rek un exemple à donner Ama Baldé c'est un exemple tey ci champion koo xam ne tey war nga mën a dajeek un grand champion parce que Ama Baldé mi dajeek Modou Lo loxo kenn il a fait ses preuves nekk un challenger officiel ba nga xamante ni moom du wax nit ñee koy waxal donc moi je pense que ni peut-être Boy Niang dafa yàkkamti ba tey lii muy wax nii du waxam pour man na bàyyi amateur yi di ko waxal na bàyyi amateurs yi di wax pour man c'est trop tôt tu sais pourquoi euh, Balla Gaye moo ko may chance pour ñu bëri mais lu mu def ci làmb du li mu def ci làmb mooy daan na Sa bi mu jógee ci loolu bëreeg Lac de gis nañu bëreeg Tapha Tine ñu gis ñu xam ni nag c'est quelqu'un boo xamante ni tey il faut que mu redoubler d'effort gën a yokk liggéeyam parce que il est limité ci li muy def donc koo xamante ni nag tu es limité sur li ngay def da ngay dem defar juwaat nga ñëwaat te du ànd ak wax ju bëri. nee na nee na bala Gaye 2 bu bëggee lu yomb. na dem fi nga xamante ni mooy géejawaay si Ahmed Aidara donte ni mooy meeru géejawaay léegi mu wutal ko place bi nga xamante ni day dagg ay juuti di ko joxe. xam nga yàlla def na dara. te yàlla mooy maye. Balla di tey yàlla defar na ko teraanga joo xam ne tey ci àdduna wax dëgg yàlla soxlaalul kenn dara te Balla Gaye mi ngeen gis li muy yëngu ci social ci alalam man di gisuma ko feneen loolu yàlla def na ko du dëgg te euh, gis nañ fi nag mbër yi parce que xam ndakaaru fii xam nañ kan moom mooy kan mais tey mën naa la ne bala Gaye bokk na ci mbër yi gën a riche ci mbër yi loolu yàlla ko defal du dëgg donc dañ koy ñaanal yàlla am na yenn yoo xam ne nag bu ko nit di wax dañu naan waxu mbër la mais dañ koy ñaan yàlla tamit mu topp ci ay tànku Balla Gaye pour que ni peut-être que ni teraanga bi bala Gaye toog aussi mu mën cee toog loolu rek lañ koy ñaanal du leneen loolu c'est des détails ça. am na solo am na solo trop di leen gërëm di leen sant. et puis aussi di leen remercier ci seen disponibilité et puis ci liggéey bu rafet bi aussi bi ngeen di liggéey pour wax leen ni c'est le sport c'est c'est nous dans nous après lépp loo fi gis rek dañ dañ koy waxtaanee mais boo xoolee ki nga xamante ni tey muy tëgg làmb yi kenn du ko wax li muy def Gaston kenn du ko wax ni diw mooy diw dafa def programme am nag il a fait programme di xool rek lu temps bi laaj li nga xamante ni peut-être que ni ci journée yi mu jëm moom lay soxla mu tëgg ko mais kenn ku jusque du Balla Gaye du Boy Niang du kenn moo koy ne diw ak diw mooy bëre mooy xool nag ki nga xamante ne rek bëgg na journée boobu mu def ko donc chaque chose à son temps dara jaru fee yàkkamti ça bouge pas.